ndax mille la waroon a déposé ñu déposé 18000 on a validé les 13700 presque 400 euh, presque 14000 donc le cumul on a validé 54000 euh, parrains sur les euh, 58000 donc aujourd'hui ñu ngi remercier di féliciter l'ensemble des membres du parti, des membres de la coalition avec les partis alliés ñi nga xam ne ñoo jàpp ci parrainage bi muy la jeunesse féminine les jeunes euh, les techniciens les cadres les femmes ñi nga xam ne ñëpp liggéey nañ guddi ak bëccëg ay fan ngi nii nelawuñu pour mën a am ay parrains yu baax yu rafet yoo xam ne doon ko mën a présenter conseil constitutionnel kon tey ñi ngi sant yàlla alors di jox rendez-vous nag militants yi ak responsables yi pour ëllëg ñu gën a mobiliser parce que li nekk ci kanam aussi am na solo bu ëpput solo alors donc ñoo doon rendez-vous à tout le monde pour que ñu mën a maintenant démarrer une campagne électorale bu fekkente ne dossier bi yëpp vérifié nañ ko pour mën a ëllëg jox réew mi El Hadj Malick ñu mën koo liggéey teg ko ci liggéey teg ko ci jaamu yàlla ak rafetal. ngeen bëgg a ñu leen sant leen gërëm. ngeen bëgg a jël réew mi mais daanaka bu mel ni Sénat moom mi euh, saytu xam ne li nga xam ne moom mooy fichier électoral moom jarul mise à bees bi donc na ngeen di procéder par rapport à ça. écoutez yaakaar na ne le parrainage du lu parfait wax dëgg euh, parenage bi am na lu bari luñ ci war a defal. mais euh, ni ñu gisee parrainage bi aussi amuñu benn certitude que li ñuy wax naan nekkul ci fichier bi wala mi ngi ci fichier bi loolu dafa laaj suñu techniciens yi suñu informaticiens yi dem liggéey ak ñoom ñu xam réellement lan moo nekk ci fichier bi loolu aussi daf di sax un droit boo xam ne dañ ko war a def waroon nañoo mettre le fichier à notre disposition defuñu ko tey am na ay contestation ci fichier bi buñ bëggee transparence nañu ubbi suñu techniciens yi liggéey ak seen techniciens yi ñu xam lan mooy nekk ci fichier bi réellement bu mooy bu mënul def aussi un audit ñu mën a xam ban fichier exactement lan utiliser waaw. alors donc euh, nous rendons grâce à Dieu nous avons aujourd'hui euh, le président élage Hadj Malick Gakou a validé sa euh, son parrainage et nous l'avons validé euh, d'une manière très euh, vraiment correct puisque nous avions 18 000 euh, parrains à, à, à, déposer pour régulariser 3 400. Nous avons pu valider euh, 13 000. Alors donc nous avons un cumul de 54 000 sur les 58 000 975. Donc nous remercions le bon Dieu et nous remercions l'ensemble des militants, des responsables au niveau du Sénégal et de la diaspora au niveau du Sénégal l'ensemble des jeunes des femmes alors des techniciens des cadres euh, tous ceux qui ont travaillé et surtout les partis alliés donc le coordinateur Mamoudou Thiam on remercie véritablement tout le monde et nous donnons rendez-vous aux Sénégalais pour les prochaines étapes nous pensons que le pays a besoin de changement mais un changement positif Et nous pensons que El Hadj Malick Gakou incarne ce changement pour mettre le pays en ordre, pour mettre le pays en ordre de travail dans la discipline et l'organisation pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. En ce qui concerne le fichier électoral, nous pensons que ça mérite quand même que on puisse euh, certifier avec nos techniciens et les techniciens du Conseil constitutionnel quel type de fichier réellement on utilise pour rassurer tout le monde, parce que les gens ne sont pas rassurés du tout. Merci beaucoup. monsieur le maire xanaa nga sànni si kaddu monsieur le maire bu ndaw de miin nga lii miin directeur de campagne. par rapport ak kaddu yi nga bëggoon a sànni ginnaaw ba Malick Gakou bon sant yàlla kese li suñu mandataire national Bérouba gisee wax rek laay waxaat mooy sant tous les sénégalais les responsables aussi du grand parti. Euh, de la coalition Gakou 2024. Mhm. remercier le bon Dieu sant ñëpp daal gërëm ñëpp waaye tamit nag li mu wax loolu mooy dëgg. parce que dañ naan quel fichier se fier bu Sénat waxee lii conseil constitutionnel wax lee finalement bon ñun nag suñu position démb mooy suñu position tey parrainage bi mosuñu ci d' accord tey maa ngi koy expliquer à la télé. Mhm. ne ñu koy indee après le dialogue à l' assemblée nationale sur 165 députés. c'est moi qui suis le seul député qui 165 qui votait contre ce parrainage-là. Parce que ma coalition di Yewi Askanui avait ave euh, voté pour l'abstention. Nyep, Khalifa, euh, euh, euh, euh Wallou, et Le Benno avaient voté pour. J'étais le seul. Tétaï, si nous avons assemblée, je voté contre. Et je pense que l'histoire m'a donné raison. Parce que amul kenn koo personne ni d' accord na ci wàllum parrainage bi parrainage bi Macky Sall arrangé wu na ba ñu bëree bëri léegi sax kontaan nañ ci parce que ay candidature yoo xam ni dafa bëri dem ba à deux cent cinquante six sénégalais yëpp ne wéy parrainage bi baax na parce que moom ci boppam moom Macky toog na fii wax carrément ne au local mais bu gars yi jubawul man maa leen di wax na leen bon kere créer liste parallèle ma dimbali la moom moo ko wax de diffamé moo ko nag moom moo ko wax. bon ñun daal en tout cas jàll nañu ni ko bureau ba gisee waxee noonu rek nag noonu la fay demee incha allahu rabi changement bi ñu bëgg ci réew mi le président El Hadj Malick Gakou moom lañ ci yaakaar c'est un homme social un réconciliateur parce que réew mi moo soxla fi mu nekk nii ku jubóo lañ dëkk bi presque ñëpp a mer même ñu nekk ci pouvoir bi sax ñoom ñoo gën a mere sax seen candidat bi Macky jël ñëpp a mer ñëpp loolu nag tax na ñun ñu ngi ñaan yàlla président El Hadj Malick Gakou au soir du 25 février. ñu dégg ko mu gagné au premier tour au pire des cas mu dem deuxième tour yàlla dénk ko réew mi ñu jubóole sénégalais yi. dem ci li nga xam ne mooy euh, élection présidentielle ak fichier bi parce que étape parrainage kese coow li li ma waxoon rek sa élection locale yi Guédiawaye bi ñu waxee ne gars yi dañuy def ay transfert d'électeurs mhm. dama leen wax ma ne leen ñoom li ñuy indi biir Guédiawaye mënuñu bëri ba gën a réew ba gën a bëri waa Guédiawaye léegi sénégalais yi lu gars yi sàcc sàcc bu sénégalais yi taxawee opté pour le changement mënuñu muus ak moteur bi ba Benno Bokk Yaakaar gagné élection yi loolu nag moom laay waxaat fi fichier bi comme que ñoom nee na ko jox kenn sénégalais yi nag bi ñu nekkee au moment où nous fii fii fii fii fii su continuer jusqu'au vingt cinq février mais Amadou Ba deux deux premiers yi dem deuxième tour mënu ci bokk mais taxawaayu opposition moom nii ni taxawee noonu la ñuy continuer di taxawee di xeex ba tey amul soppite Benno mënul dem deuxième tour loolu c'est impossible Macky Sall ci boppam moom il le sait fii ñu taxaw nii te gaw ma ne changement dina am au contraire dañuy gën di dem nit ñi di gën a mere le régime nit ñi di gën a mer fichier bu ñu mënti indi ñoom mënuñu dem deuxième tour à la coulée Aline mënul ne c'est impossible bu ñu fi préparé seen i résultats te mënuñu gagné. merci beaucoup jërëjëf mu nekkoon honorable euh, député Ahmed Aidara mu indi ay leeral si li nga xam ne moom moo ñeel euh, wàllu. Euh, Euh, candidature yi nga xam ne moom mooy candidature Malick Gakou moo nekk le directeur de campagne de de de de Malick Gakou 2024 euh, donc moom mi nga xam ne moom mooy euh, Ahmed Aidara mu indi ay leeral par rapport ak li nga xam ne mooy mbiru fichier électoral bi nga xam ne mu ngi jur coow si biir réew mi ak lu ni mel donc mun nañ daanaka wax ki nga xam ne mooy Ahmed Aidara ah misaan misaan ma sori misaan gars yi dañuy laajte gars yi dañuy laajte mais gis nga xew mooy ni candidat yaa dem mu mel ni euh, wal parrainage yi candidature yu bëri ñu ngi koy daa di valider si wàllu parrainage yi ku si mujj